dafa am ku jóg saisir conseil constitutionnel mm-hmm. ne Karim Wade mii double nationalité la am. Mm-hmm. mu def recours. Mm-hmm. ci biir recours boobu bu ñu ko defee ba am ci ndam Karim dafa bind ne waxuma ak yow Thierno Alassane. yow Amadou Ba yow yaay xool. ki la yónni. <laughs> waaw loolu de wax. ci yoon mais yow loolu loo ci dégg. ah foofu laa jëm mhm. ah, la ah, yónni ki la yónni. ki la yónni nan la ko yónnee. Mhm. mooy xam na ne recours bi nga xam moom la yóbbu ay ay avocat wu Amadou Ba ñoo ko bind. wax ñoom PDS dara dégguñu. ay ñoo bind recours. seen ñoo def recours mhm. bi. bu seen ascenseur. ba Thierno Alassane jël ko tënk ko dem yóbbu ko. ko Thierno bi nu ci dara moom. waaw deful dara. moom laa lay wax moom ci logique gu li PDS wax. c'est important ce que ce que tu dis Pape dëgg leen li Umar di wax. waaw. loolu c'est très grave ça. avocat yi ñi ñuy dem na le ñoo def lii. mooy avocat Amadou Ba avocat Amadou Ba ñoom ñoo def recours ñoo def recours waaw. te ñoom sax doon nañ ci neneen Karim Wade nee nañ sax Moussa Diop mooy avocat mi dafa ne prison. Thierno Alassane kan Thierno Alassane. Maître Moussa mi nekk prison mooy avocat Thierno Alassane ci li ñu doon sax mooy avocat am. waaw mais Thierno na ay avocat. waaw mais d'accord dama lay wax rek. waaw ñoom li ñu wax. waaw lii moom révélation ci li ni ne moom la ñu wax. lii révélation la. donc moo tax mu ne ko yow waxuma ak yow. waaw Karim loolu la wax. que la yónnee laay waxal. Mhm. donte ñi ngi wax ay problème ñoom ñaar yu ñu amoon Thierno Alassane ak ak Karim gannaaw bi Karim nekkee ministère des transports aériens. ak kon ñoom ñaari ñoom ñaari ñu am. antécédent waaw waaw mooy mooy Karim Wade ak Thierno Alassane. mais foofu doo foofu doo tudd brèche rek. deux secondes nga rappeler pour xale yi seetaan. ñi xamul ce qui s'est passé entre ces deux hommes là. non parce que euh, Thierno Alassane Sall ñu fàttali ne ASECNA. Euh, ASECNA waaw boobu am na problème ASECNA la ak ministère des transports. ok bu bu bu Karim doon jiite. bu Karim doon jiite. ok.

ak Cheikh Ndiaye. ñu def député c'est des députés issus du PDS. adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale pour arriver vers la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. parce que gis nañ ne. Karim nous mu subir ni du yoon. Nous bañ écarté ñu tënk ko nag ci ñaari mbir ñëpp xam nañ nit pour nga renoncer comme ni ko dit wax léegi. mooy déclaration de renonciation. ou décret ou décret. dëgg la déclaration boobu. Karim def na ko le 23 octobre contrairement à ce que Cheikh yirim a dit. il a parlé de 26 C'est C'est pas le 26. C'est le 23 le 23 octobre 2023. ou à Doha à Doha. Ouais. Et c'est le c'est le, c'est le, le, consul, qui, a, qui, a, qui, a, signé qui a reçu et qui a signé. Ah bon Donc, de facto, il perd sa nationalité française. Absolument. Il perd. T'es, t'es beau lire. Il a perdu rapport, par, beau lire, recours. Tiens, ça va. Bin na ko ci. Bin na ci ñaari conditions yi kessé kessé mo lay taxa perdre. Mo lay taxa perdre. Mhm. da ko si bind de. waaw mais xam nga mooy déclaration de renonciation bi. mais comme li nga wax rek ah, Thierno comme bind ko xam naa jotul sa lire moom yëngu sa xëy na affaire ba comme xëy ngi dégg. c'est grave hein waaw eh, ah. c'est-à-dire tey bu ñu boo boo lire moom ra moom recours mm-hmm. def na ci loolu. mooy déjà absoudre na. lii Karim def noonu. Mm-hmm. moom wax na ne que ñaari conditions yi rek nga mën a ñàkkee sa. Mm-hmm. moom wax na ko si ci recours am. kon Karim dañ ko tooñ waaw waaw mm-hmm. xaaral dañ dañ wax logique bi waaw ba ñu xam après ñu après ñu benn par benn waaw benn par benn parce que mm-hmm. tey fi ñu toll nii wax naa ko wax naa ko duudu mii mm-hmm. nee naa ko balaa nga naan naam ne fa il faut sauver la république absolument man je dépasse ce que vous dites ndax on va vers une crise institutionnelle boo defoon ndànk nañu wax ci nañu wax d' abord ci li nga xamante ne moo am solo mooy lii si lañu dugalee li ñuy wax lettre. pour que la lumière. soit faite ñom wa PDS. wa PDS si li bu ñuy wax PDS ñu wax député PDS. c'est ça waaw c'est important wa c'est pas le parti hein, en tant que parce que mbir mi dafa bëri ay éléments. Mhm. lu ñu bëri comprendre mhm. Wa mais. ah yo la yow. <laughs> duñu dem tribunal mm-hmm. yenn saay mm-hmm. ñu nekk audience mm-hmm. ñu war a condamner nit ci dara lañ ko war a condamner kooku xëy jékki-jékki am benn avocat bu jóge fi ak benn këyit tout à fait def complément dossier def complément dossier ne ah, dossier bi ah, ah. mi ngi nii dëgg la ñu xool waroon jël décision de condamnation ñu ne noonu suspend suspend la séance ñu duggaat ñu ne ah waa ji ni ñu ko naan condamner nag du dëgg parce que indi na këyit boo ci ni wane na loolu amul. juge bi de revoir sa position. ah parce que ah, euh, euh, en ci en matière de droit bom du rek tout ce qui peut innocenter ou. Euh, ah. procéder à maintenant député PDG ne ñun même lu ñu mënti wax d'accord mais dugol nañ ni wane ne Karim benn nationalité la am. té ba ma koy dugal. booba conseil constitutionnel ñu ay avant yi nga doon dugal. Mm-hmm. mais yow bo demee ba affaire doublon doublon. doublon yi. Mm-hmm. da ngay may nit ki d' abord mu demaat. waaw defaraat. defaraat. pourquoi Karim mayuñu ko. pourquoi pourquoi moom bu fekkoon loolu am na. Mm-hmm. pourquoi mayuñu ko. d' autant plus que avant ngay joxe dafaa ngay def la publication définitive des candidats fekk na loolu mu dugal ko. Mm-hmm. Ah, bu la neexee seen xel ñaaw. mais bi ci ëpp solo ñu tenir compte ñun si ñun mooy corruption bi. waaw ak surtout le Karim wax né amna na motif yi tax ñu rejeté candidature am am ci 20 yi au moins. deux dina ci ñew waaw. <laughs> mais sur le sur le recours on nous dit que c'est abdelaziz Aziz Diop l'ancien de la paire qui a écrit le recours. Mm-hmm. abdelaziz Aziz. Diop Abdou Diop qui est maintenant à la paire. waaw ki qu'un conseil spécial à la présidence. recours. non abdelaziz Diop Abdou Aziz Diop l'ancien ministre. non léegi Boun Abdallah Dionne la nekk. la ko Boun Abdallah waaw on dit qu'il est celui qui a écrit. waaw mais mais mais non recours ban. bu bu ta Thierno Alassane Sall. waaw mais mais mais mais d'accord. c'est-à-dire mais mais mais avocat yi. waaw mais mais mais au moins loolu. dinañu wax dañuy wax li li li ñuy wax. li andi waaw li li waa PDS waaw ah, li ñu wax. Mm-hmm. loolu dafay baax askan wi di ko xam. c'est important waaw parce que PDS moom. waaw léegi nag après ku ci ne wax. Mm-hmm. Thierno Alassane mën na wax ne non non loolu ñu wax amul. Mm-hmm. mi ngi nii lii kii moo ko def. ku ne indi sa preuve. mais au moins il faut que nit ñi xam. lii xew yépp lan moo ko lan moo ko wund. waaw ñu ko yóbbu assemblée nationale. mu nekk wàllu corruption. kenn xamul lu ma xam. kenn xamul lu président assemblée xam. kenn xamul lu Karim xam. kenn xamul lu Amadou xam kenn xamul lu Macky sàll xam. nous sommes loin parfois des réalités. mais fini tout le nga xam on va vers des élections yu am importance. Mm-hmm. situation bu mën di mën na ko war a entassé. Mm-hmm. lépp lu ko mën a ju jural rek war nañ ko jël disposition absolument mais ci biir mbir mi. Mm. dañ ci mal kenn. Mm-hmm. muy kan. le candidat muy Amadou. Amadou Ba ñu bay doon nañ xaar nak dem déclaration wala ay démission ak ay affaire do lol ça dafa na bruit dem. muy Amadou Ba. Mhm. waaw ko waxal Amadou Ba. parce que boo déggee PDS député li wax. Mhm. mooy candidature Karim Wade. Mhm. ki nga xamante nii ne moo ne ci biir takk ci rip ba écarté ko Amadou la. naa la de de. ñoom lañ lañ ba ci biir sax la waaw ba mu am ci ñaari ñaari. candidat ñoo juge cheikh tidiane ñaari cheikh ki njaay ki kulibali te yamuñu ci corruption dañ ne conflit d'intérêt wa conflit d'intérêt bi fofu yow noko déggé ci ñom ñooñu conflit d'intérêt bi dinañ ñëw mm. après ci ñom niñ koy gisé ba ci hmm mm-hmm. ah kon conflit d'intérêt bi dafa am triangulation dafa am dafa am dafa am lu graw ba ci jomaay ak ci clé clé USB way clé USB yi wax né gaay ñi dañ ko jox gaay ñu dem yobbu ko defal lañu ay candidat ñu Omar yaa ngi wax lu grave. <laughs> moo loolu loolu quoi. c'est-à-dire il faut nag nga jàngat ci li ñuy tuum tuumaal. nga ciy génne ay mbir. et tamit xam nga loolu tamit dafa indi euh, lu tax bizarrement Kédo maître Kédo Ciré ak maître Bamba Cissé di défendre. waaw mais moo tax ñuy bind non loolu sax xam nga loolu sax ñu ñu ngi koy door a gis. Mhm. xam nga tey génn nga ah. élément moom ñu ngi koy dóor gis mais bi PDS di bind. Hmm. di yónnee assemblée. boobu loolu xalaatuñ ko ñun. waaw ah, dëgg la boobu xalaatuñ ko boobu on avait pas fait le rapprochement. dafa ñu rapprochement mais peut-être tey loolu mën nañ ne ah conflit d'intérêt kat moo wundu tey ñi jàppale ko. dëgg la mais au moins nañu campé ci li nga xamante ne ñoom la ñu def. loolu la PDS wax. Hmm. ak encore ci clé yi. Hmm. ñoom dañu leen jox seen clé.

veulent savoir qu'est-ce qui se ci xaalis la finalité. waaw la finalité ba pare ba pare important waaw ba pare ba pare xaalis bi. ah parce que dafa am xaalis. nee nañ sa ah, te waxuñu un milliard. ay mil ay trois cinq. milliards lañu wax. dégg naa ay palier la waaw yomati di wax ne comme ñu nekkoon Sandaga. mel ni ku la créé woon ay ay ay ay seen biir il paraît que sax xaw na créé tuuti coow. waaw waaw waaw laa wax accusation yi laa wax mooy ah. accusation yi. mooy li nga wax d'accord na mooy accusation yi. Ah, mais au moins c'est c'est normal c'est normal mais nañu xam ne dañuy retracer li xew. waaw ah, loolu laa bëgg man man man ñu retracé nii li xaw ba indi lii tey. waaw qu'est-ce mooy lii. mooy li ma la wax nii. donc donc yow tu euh, euh, euh, tu as rappelé fait yi mooy clé USB yoo xam ne ñoo circulé. waaw corruption bi. corruption bi. a que clé USB yooyu mooy ak confidentiel clé USB yooyu ma ñu fàttali ne mooy parrainage yeeg eh, moo indi validation beeg invalidation mm. nangam sangam ak xaalis ñoo xam ne dañ leen a yónni ñu dem jox kii jël fii yóbbu kee mm. te on parle pas de millions on parle de milliards mm. eh, dégg naa sax est-ce que amul foncier ay terrain ak yooyu mais mais yow sànq yaa ngi wax ñaari candidat mais loolu c'est annoncé waaw loolu lan la loolu ñaari candidat waaw au moins la ñu wax au moins. au moins ñu am yu xamante ne nañ dañu am double nationalité. kii France. kii Amérique kii Suisse. am na Amérique tamit ah keneen Suisse la est-ce que amul jigéen bi ñu tuddaale. <laughs> amul Suisse amul est amul femme. yow am na loo xam ne. <laughs> jël vingt candidats di chargé noonu rek. waaw mais mais mais dal mais mais ñu xaar rek. mais dégg tamit yow journaliste war ngeen li ayoo ba fay. waaw waaw waaw dégg naa ko ci bëgg si fay génnaat. waaw kooku kooku yow yaa ciy ñëw. waaw kooku di nga ñëw xam ku nekk li xam. fàttali ne journaliste presse Afrique. bu ku ne xam ne Ibrahima Lissa fay waaw waaw euh, ci parti Pape Alé Niang la euh, ci parti Pape Alé Niang. Euh, ah euh, ayaba moomu. moom moom fajar teel la génne daañu joxe résultat. joxe résultat euh, résultat bac bi la joxe 14h55. xam nga ku nekk xam nga ñun ñi tey yàlla dañu fi dajale. waaw loolu la yàlla dogal te ku nekk li nga xam nga wax. waaw. ci ce point de vue ñaaw na ba pare da gën ñaaw. waaw léegi léegi ñu ñu xam fi dara ñaaw. wa non oui oui oui ma day roubé ak bal. non non non non. non dara ñaaw non dañuy dañuy wax bu nekk lay argumenter oui oui bu nekk lay non dara ñaaw fii. mais mais da ngay ñëw vous êtes en train de surcharger les gens. non mais surcharger non y a pas de surcharge. waaw mais après da ngay ñëw. oh y a pas de surcharge. vous avez la parole. vous n'avez pas la charge Monsieur Koulibaly, vous n'avez pas la parole. Omar, continuez. Vous, c'est vous qui avez la parole. Monsieur Koulibaly, vous n'avez pas encore la parole. Nous dem. Xam nga débat mercredi n'avez la bureau. Waaw. Xam nga ñan demander hmm. député PDS. Nous demander commission commission mais mais baax de lu baax de lu la la. député PDS. Hmm. ñoo demandé bu leen neexee ñoom. Mm-hmm. mais ci biir li ñuy demandé kan la ñuy tuumaal candidat wu Benno. waaw waaw. muy kan Amadou président assemblée nationale fa la bokk. APR donte foofu député la fa. bureau bi. kan moo fa ëpp. Euh, les gens de Benno. waaw ñoo bañ ko fa dugalee. Mm-hmm. adopté nañ ko wala adopté nañ nañ ko. sans contestation mais avant boo secrétaire exécutif APR. waaw mooy njëkk a génn député yi. waaw foofu tam ñu bëri ñu jàpp sama genre gi hmm. loolu presque bon su ma doon Amadou Ba damay démission ndax loolu lâchage en règle la. <coughs> yaa ngi dégg loolu toroxal en en en public loolu. ñële adopté ko. ñu dem commission. Hmm. commission bi groupe parlementaire yëpp ku ne am na fa commission. dëgg la waaw. ba ci noonu la ñuy. ku ne am na fa commission. dëgg la représentant. te bi ñu demee commission ñi ñëpp ko voté à l'unanimité. à l'unanimité tout à fait ne ñëpp a voté à l'unanimité. waaw tous les groupes. ba ci Pastef. ba ci Pastef ñëpp ñoo voté. biñ ma laajee vote bon, dama leen ne voté pas parce que c'est pour faire plaisir à Karim ou à Massam, c'est pour la République. dañ ko voté c'est pour la République. dañ ko voté parce que li ñu wax ci biir. du ndaw du ñu jugé quoi quoi qu'on puisse dire mm-hmm. même si ñu faisons ne ñun suñuy candidat jàll nañ. Mm-hmm. dafa war xam mm-hmm. na ko ko. pour quelle finalité mais finalité non xam xam nga xam nga finalité c'est autre chose. mais au moins ñen wax après ñu wax finalité bi. Mm-hmm. mais les guerres communiqué bi am tamit euh, wa wa wa euh, conseil constitutionnel la indi plénière bi. ak juge seen euh, juge bay génn xam na fi wax ñu ne ne ne intérieur assemblée li mu wax léegi xaaral dafa am dafa am dafa am fenn fu mm. résolution mm-hmm. bu muy lan. gis nga région bi. bi mm-hmm. mm-hmm. cité Amadou Ba. Mm-hmm. cité ñeneen ci biir. waaw. waaw ak am ñeneen tamit mais waxuñu si corruption bi. déedéet waaw ñoom ci lu ñu wax ñu. xam ñu bëri dañuy jaakaar ne corruption bi ba léegi amu si. am na si mise en accusation bi dañuy xaar. dëgg la parce que y aura une mise en accusation. loolu moo tax foofu ñëwagul. ok donc tey bu plénière bi jeexee nii. après lan mooy ñëwaat. day gën a yokk crise institutionnelle bi am. quelle finalité. waaw mais d' accord moom laa la boobu nag nga xam ne mën nañu porter ñombe moo tax ñu teel a alerté. d' accord léegi euh, am. Hmm. Dour yaa ñëw après.